للشيطان sadaqallaahu al-aziim jërëjëf Cheikh Mouhamed Nour ci euh, su alquranul karim ci suuratu euh, Mariama mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax euh, ci ajjuma ji tey di ñaar fukki fan ci weeru Chaban 1440 tollal ko ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril 2019 di leen di nuyu di leen di ziara bu baax a baax. tey nag moo nekk ajjuma joo xam ne spécial la maanaam exceptionnel la Euh, ñiy jagleel ko tey mboolem jilit fu ñu mënti nekk ci àddina bi mu di bésub alquranul karim ñi si ànd ak euh, mawlaay euh, ñi si ànd ak léegi mawlaay imam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé imaamu ratib bu Medina Baye waaye di ngeen ko mën a déglu tim di ngeen ko mën a seetaan si youtube bu rajo fayda ak ci facebook bu rajo Alfayda ak si Alfayda info religion Mouhamadou Khalili lii moo nekk ci technique bi ak Wali sek ci caméra bi Serigne Gueye lañ fi nek ak ci euh, taxawu Alhaji Ibrahima Gaye euh, bi nga xamne moy directeur général bu radio bi khalifa bi mu ngi ñew mu ngi yegg ci nonu ñi and ak mom euh, ak suñu caméraman Serigne Gueye ci and ak khalifa bi kon mu ngi non di ñew yegg ci na dina fi fekk mbolam takko takku ñew fekke ci li nga xamne tay modi kaamilo euh, alquran yi mu ngi noon moom kalifa bi Mawlaay Cheikh ma Tidiane Ibrahima Niass di euh, toog ànd ak ñi nga xam ne ñooy euh, ay toppandoo ñi nga xam ne ñoo koy toppatoo di Cheikh Aliou Fall ak Mouhidine Cissé ñas mu ngi noonu kon ak ki xam ne mooy Cheikh Baye Mounzir en direct ci Alfayda FM kon tey ajuma ji di avant dernière ajuma ci weeru Chaban 1400. 40 mu di ajuma bi nga xam ne daanaka rek buñ demaatee ca beneen ba moom dañuy wax ne ñu ngi jëm ci li nga xam ne euh, moo di weeru koor yi kon ñaan ak léegi alquranu karim ba léegi ak euh, cheikh Mohamed Nour laata cheikh alaaji Mohamed Zeynabu Ñas ba alaaji alquran di yeg si si jumaa ji euh, di ñu dëgtal li nga xam ne moo di alquranu karim kon xalifa bi en direct ci Alfayda international 90 point 1 ak si www point radialfayda point net xam euh, naa kilifa yi ñu ngi noonu maa ngi seen ki nga xam ne moo di euh, cheikh euh, cheikh Abdou Malick Ibrahima Niass ak ki nga xam ne moo di cheikh Mamadou Kabir Deme xalifaab Thierno Assane Deme Thierno xalifaab Thierno Assane Deme en direct ci Alfayda waaw mu ngi noonu kon ñu ngeen di gis noonu ñoom la ñooy kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci cheikh Ibrahima Niass mu cheikh ji Euh, Ousmane Fati mu ngi noonu Cheikh Abdoul Malik Ibrahima Niass Cheikh Mohamadul Mahdi ibnu Maolana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima mu ngi noonu euh, ca wet ga Cheikh Aboubacar mu Cheikh Alhaaji Abdoulaye Niass moom itam mu ngi noonu toog euh, ci kanam sappe gi dañ fi xalifa bi ci wetam Cheikh Basir mu Cheikh Alhaaji Mohamed Zeynabu Niass imam Cheikh Mohamed ibnu Seydi Ali Cissé ak Cheikh Moustapha mu Cheikh alxaaji Abdoulaye Niass gis jumaa ji fees na dell euh, moo xam ci biir wala ci biti loolu yëpp fees na euh, mooy li ma loon wax sànq ci suba ne euh, fi la ci tant bi nga xam ne fi la ñuy gàmmoo waroon neen ko mën a tant ma nga xam ne tey jii nit ñi danañu mën a am fu ñu toog jàngal Alxuraan ak fu ñu mën a amee julli jumaa ji ndax jamono ji naaj yu tàng na trop wax dëgg yàlla Euh, tàng na lool en direct kon imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ñu ngi koy xaarandi léegi moom itam mu yegg si bu yegg see ñaan nag moom ci xutba gi ak julli gi mu ngi noonu kon al imaamul akbar Mawlaa Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé moom la ñuy xaarandi léegi euh, mu yegg si fi nga xam ne moo di ci jotaay bi ñi ànd ak moom ci xadmul quran bi euh, wax naa la ko sànq démb ki nga xam ne moo di Mawlaay al Khalifa Cheikh Ahmed Ibrahima Niass amal na yónnee na fi lu mat si téeméeri kaamil ñi seddale ko ñi nga xam ne ñooy jàngal Quran waaye al imaamul akbar tim def lu amam solo mu di bés bu nekk dina am uh, añ wala reer wala ndékki boo xam ne dina ko yónnee ñi nga xam ne ñooy jàngal Quranul Karim uh, fii ci jumaa ji ngir rek moom itam uh, jaamu si yàlla kon bàyyi laaji alquran mu ngi noonu di yegg si mu di Cheikh Alaaji Mouhamed Zeynabou Niass mu nga xam ne turandooram la ñuy defal euh, suba incha allah ziara ci kër Yoro Xoja mu ngi noonu kon xalifa bi mu ngi noonu di waxtaan ak euh, imam Baba Agne imam bu nga xam ne moo nekk fële ci jumaa yi coofak bi euh, ci wetam imam Cheikh Mouhamed ibnu Seydi Alioune Cissé mu ngi noonu ak ki nga xam ne mooy Cheikh Bachir mu Cheikh Alaaji Mouhamed Zeynabou Niass wala ki ngeen gis noonu mooy imam Cheikh Mouhamadoul Mouhamed ibnu Seydi Alioune Cissé waaye itam Cheikh Wuldu Rabbani bi nga xam ne moom mooy amal naafila gi ci fan yu néew incha allahu rabbi mu ngi noonu kon léegi alquranu karim la ñuy jéem a déglu ji ànd seeg Cheikh Alhaaji Mouhamed Zeynabu Ñas Baay Alaaji alquran mu ngi noonu di dawal ñaari rakkaam moom Baay Alaaji Ñas ba wala mu ngi naa Cheikh Bakar Ñas Baay Mbay MC responsable moral dairatul mustar eh, ah ma ngi dem Moustarchidine da Shababul Fayda wa ma ngi dem ci responsable moral Serigne mustapha ci ñing ngi koy siyaare bu baax baax sax bokki kon ngi non tej tej kamil alquran yi nga xamne ñu leen ko jang ni ki ba barki dembu alxames dembu ak tey ji ci àjjuma ji lañ koy tej lolu yeb di ngeen ko dundu limbi ñaata la daw ñaata la ñaata ci yokku Eh, nyata ci yokku daw nyata ci amoon ak ren nyata ci yokku wala moom ngeen gis noonu alqaari u Medina bay mu di ci alaaji mohammed zainab Niass mo ngi non di dawal ñaari rakam moom ngeen gis nañ yeen ñi nga xamne yeen ay setan waaye yeen ñi deglu tim ñi xamal leen ne ngeen ko setan ci YouTube ah ngeen ko setan ci ci jajeuf sama xarit pap job Dakar Acti pap job Dakar Acti maa ngi koy bëggee ba mom al fayda rek la bëgg nak xaw lu Dakar Acti acca <laughs> maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax mbooleem organes yi fi nekk moo xam réseaux sociaux yi fayda Tidiane ak Kossy TV ak Baye Universel Média ak Medina Baye Kaffrine TV Medina Baye Kaffrine ñoom itam ñu ngi fi kon tey mbooleem euh, ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum tas xibaar ñu ngi noonu Cheikh El Hadj Mohamed Zeynab kon moom la ñuy teewlu léegi ci alquranul karim en direct si la référence Alfayda FM ñu teewlu Cheikh El ji Mouhamed Zeynabou Niass Ba El Hadji alquran même. ca ñu teewlu Ba El Hadji alquran en direct si Alfayda. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا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

حي على الفلاح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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقد علمت يا إنسان وكلنا ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة الصنفان صنف مقرب مصان وآخر مبعد مهان صنف نصبت لهم السرة والحجال والأرائك والكلال وجمعت لهم الرغائب والآمال والصنف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 Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. Alfayda FM.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 وينهي عن يعني الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة من تمام الصلاه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي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 Alfayda FM Allahu akbar Allah السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سرين ميرنا كنا كجانغ فاتحة بنيون نيت كل هو نيت صلاة الفاتي نفاس ين هدي الكباي وهنا نكون جلين جماعة نبي الإمام الأكبر مولاي شامتي جان علي سيسي لنتي أندرتون bés bi nag mu di tëjte kaamil bi euh, mu di tëjte kaamil bi mu ngi noonu kon tëj kaamil yi ba pare léegi ñu ngi noonu di xool adat bi lim bi maanaam euh, mën a jàll ci li nga xam ne moo ci mu di euh, tëjum kaamil bi en direct ci Alfayda imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé kon lañ ci ànd ak léegi ci li nga xam ne moo di moom Cheikh Tidiane Aliou Cissé sant rek. am nañ ñaar ak juróom ak ñeenti téeméer ak juróom benn fukk allah waaw am kay mos Yes. alhamdulilah ñes ñes ñes alhamdulilah

ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn. ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn. sëriñ bi mën nañu jàng xatmu bi ku nekk na teewlu. sëriñ bi mën nañu jàng xatmu bi ku nekk na teewal aajoom. moo nekk yi nga xam ne moom lañ ci yéene woon ci li mu woon. moo nekk aajo yi nga. xam ne boole ci boole. booleeg aajo yi nga xam ne. booleeg aajo yi nga xam ne. lañ teewaloon ci ndigalam. moom lañ teewaloon ci ndigalam. ku nekk na ay na aajo lim bi lu nekk xaj na ci. ndax lim imam na lu nekk xaj na ci. adduna bi yëpp xaj nañ ci. adduna bi yëpp xaj nañ ci. waaye taalibe baay yal na leen ci yàlla xaasal. waaye taalibe baay yal na leen ci yàlla xaasal. ak njabootam zaahir njabootam baatin. ak njabootam zaahir njabootam baatin. fuñ mën a ci àddina. fuñ mën a ci àddina. ñu ngi jàng xatmu bismillah. kon ñu ngi jàng xatmu bi bismillah. bismillahi rahmaani rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة والسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة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 ولا عيبا إلا سترت ولا حسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير هذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك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 اللهم انا نذره بك من نحور العداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم انك عالم باعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا واصينا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 mu noonu kon jàng leen xatmu bi imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé moo ko jàng 75 461 lañ jàng ci ay kaamil mu di 75000 mu di juróom-ñaar fukki junne ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn mu di saba alaf wa aw xamsa wa sabaina alaf wa خمسة أربعمائة وواحد وستين يتوى الشيخ محمد المهدي mbokk yi sëriñ Mahi Niass na bisimilah asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu. sant yàlla. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. mi ñu dollil ci xéwalam yi. mi ñu dollil ci xéwalam yi. bési tey bii. bési tey bii. ak fan yi yëpp. ak fan yi yëpp. nga xam ne yëpp xéwal la. nga xam ne xéwal la. nga xam ne yu bees la ci ñun. nga xam ne yu bees la ci ñun. yàlla saxal. yal na ko yàlla saxal yaa rabi. te gën koo beesal. te gën koo beesal. saxal ko fi daa'iman. ñu ngi sant suñu way dawe yi nga xam ne. ñu ngi sant suñu way dawe yi nga xam ne. ba maam alaaji njëkkee sos kaamil yi. ba maam alaaji njëkkee sos kaamil yi. benn kaamil daf leen a tawoon. benn kaamil daf leen a tawoon. tey ñu am juróom-ñaar fukki junne ak nangam. tey ñu am juróom-ñaar fukki junne ak nangam. bon doxi maam alaaji bi ci yàlla dëggut. bon doxi maam alaaji bi ci yàlla. taggut lim doon sàkku ci yàlla yàlla dëggalal na ko lim doon sàkku ci yàlla yàlla dëggalal na ko ko lim doon bëgg itam li mu doon bëgg itam ci njabootam ci jullit ñi ci njabootam ci jullit ñi ci taalibe yi yi mooy lii mooy lii xam darajaay alquran ci suñu biir xam darajaay alquran ci suñu biir nangu ko nangu ko it xam ne alquran xam ne alquran mooy téere yàlla bi nga xam ne mooy téere yàlla bi nga ne jàpp nañu ci nu nekk di ñu teete jàpp nañ ci lu nu nekk di ñu teetee. teete ñu xamal ñu yàlla. teete ñu xamal ñu yàlla. teete ñu xamal ñu yonent yàlla Muhammad. teete ñu xamal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. teete ñu xamal ñu mbaax. teete ñu xamal ñu mbaax. teete ñu xamal ñu luy dolli doomu aadama. teete ñu xamal ñu luy dolli doomu aadama. ci dundam ci fii ci àddina. ak bu koy yëkkatee ëllëg ci àllaaxira. ñu ngi ñii tey daje nañ ngir téere boobu. ñu ngi ñii tey. daje fii ngir téere boobu. téere boobu yàlla wax na ne. téere boobu yàlla wax na ne. man yàlla maa leen ko may. man yàlla maa leen ko may. yéen ñi nga xam ne. yéen ñi nga xam ne. tànn naa leen. tànn naa leen. ci samay jaam. ci samay jaam. yéen ñi ma ko may nag. yéen ñi ma ko may nag. am na ci ñoo xam ne. am na ci ñoo xam ne. gàttaluñ la. gàtt ñu gàntaluñ lañ. am na ci ñoo xam ne. ñu diggu doomu lañ. am na ci ñoo xam ne ñu raw lañ loolu yëpp mbooloo mi dajale nañu ko. yàlla wax nañu ci nag ca mujj ga. yàlla wax nañu ci nag ca mujj ga. lépp sama yërmande rek. lépp sama yërmande rek. ak dugal leen aljana. ak dugal leen aljana. solal leen yére yu rafet. yéen ñii ma may alxuraan noonu lay mujjee ak yéen. ñii fatloo. ñuy fatlu. ñuy fatlu. ak ñuy tayal. ak ñuy tayal. ak ñuy góorgóorlu. ak ñuy góorgóorlu. ñoom ñëpp. dugal naa leen ci sama yërmande. naa leen ci sama yërmande. téere boobu. téere moom lañ daje tey. dengoo ci kanam suñu kilifa yi. dengoo ci kanam suñu kilifa yi. xalifa ngi nii xalifa baa ngi nii toog. imaam a ngi nii toog. imaam ñun ñëpp ñu ngi dengoo. ci kaw boobu. ci kaw téere boobu. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. yàlla lépp loo xam ne. yàlla lépp loo xam ne. digale nga ko ci sa téere bii. digale nga ko ci sa téere bi ci ay ban ci ay eh, eh, xéewal. ci ay xéewal. xéewal yuy kawee nit. xéewal yuy màggal nit. xéewal yuy màggee màggal nit. xéewal yuy dëggal nit. dëggal nit. ñu ngi sàkku ci yow. ñu ngi sàkku ci yow. say jaam. say jaam. yoo xam ne mënuñ dara. yoo xam ne mënuñu dara. amuñ dara. amuñ dara it. te bëgg lu nekk. te bëgg lu nekk. yow yaa am lu nekk. yow yaa am lu nekk. te bëggoo dara. te bëggoo dara. yow yàlla ci sa téere bii ñu langaan. yow yàlla ci sa téere bi ñu langaan. jëm si ci yow. jëm si ci yow. yal na nga dëggal ci ñun. yal na nga dëggal ci ñun. mbooleem xéewal. mbooleemi xéewal yaara bi. yoo xam ne digle nga ko ci téere bi. yoo xam ne digle nga ko ci téere bi. ci suñu àddina. ci suñu àddina. ak ëllëg ci suñu àllaaxira. ci suñu àllaaxira. yooyu mu ñu digal. xéewal yooyu mu ñu mu ñu may ci téere bi xéewal yooyu mu ñu may ci téere bi ci gën a màgg li ci gën a màgg mooy xéewal ak gëm yàlla mooy xéewal ak gëm yàlla xéewal ak topp itam xéewal ak topp itam digal nañu topp nañu digal nañu topp nañu ñu ngi wax ne jàngale na alxuraan ñu ngi wax ne jàngale na alxuraan wax ne jàngale na alxuraan moom mooy wax ne jàngale na alxuraan mu ngi nii di jàng alxuraan mu ngi nii di jàng alxuraan am na ñoo xam ne bañ nañ am na ñoo xam ne bañ nañ moo ñu wax ne moo ñu wax ne. taxoo leen ak alxuraan. taxoo leen ak alxuraan. guddeeg bëccëg. guddeeg bëccëg. dee ci bàyyi seen xel. dee leen ci bàyyi seen xel. dee leen ci xalaat. leen ci xalaat. ndax ngeen xam màggaayu yàlla. ndax ngeen xam màggaayu yàlla. kawe yàlla ngeen xam kawe haayam xam yërmande yàlla ci ngeen xam yërmande yàlla ci ñun ñu ngi nii nangu nañ ñu ngi daje ci néeg bi ñu ngi nii daje ci néeg bi ci néegab yàlla bi téere boobu téere boobu ñu wax moom yow yàlla. ñu ngi wax yow yàlla. say jaama ngi nii. say jaama ngi nii. ñu bëgg lu nekk. nag. mënaluñ seen bopp dara. te mënaluñ seen bopp dara. waaye wax nañu ne. waaye wax nañu ne. wax nañu ne yow yàlla. wax nañu ne yow yàlla. yaa am lu nekk. yow yaa am lu nekk. yaay maye lu nekk. yaay maye lu nekk it. ñeexal ñi nga xam ne. ñeexal ñi nga xam ay toppkat lañ. ay toppkat lañ. ak ñi dut ay toppkat sax. seen may bu boobaa dafay uute waaye may ak àddina rek la lële may àddina rek la lii may ak yàlla ci boppam la yàlla moo la may boppam kon ñaari xéewal yu uute lañ yal na yàlla dëggal xéewal boobu nga xam ne dañuy takkoog yàlla rek te duñ tàggoog moom mukk yaara bi ñu ngi nii tey daje ci suñ téere bi suñu kilifa yaa ngi nii suñ njaboot a ngi nii xale yaa ngi nii mag ñaa ngi nii jigéen ñaa ngi nii góor ñaa ngi nii bàyyee ko fu nekk ci àddina bi ngir gëm seen téere bi ngir gëm sa téere bi ngir sàkku ci sa téere bi it ay xéewal yoo xam ne yaa ko xam yow rek yaa ko xam yal na ñu ko may yal na nga ñu ko may yaa rabbi ñun ñëpp ñu yëg ne ñun ñëpp ñu yëg ne may nga ñu xéewal goo xam ne may nga ñu xéewal goo xam ne loolu rek a tax ñuy wax xéewal yal nañu ko yàlla defaral yaa rabbi ñu ngi nii ci kanami téere bi ci néegab yàlla bi julit ñaa ngi nii def nañ li leen yàlla wax jàng leen alquran ñu ngi nii di jàng alquran. topp ndigal topp ndigal. la cay topp ci ay ngëneel. la cay topp ci ay ngëneel. yal nañu ko yàlla bindal yal bi ko yàlla bindal yaa rabbi. kenn ku nekk bàyyi nga sa soxla. sa soxlay àddina. dara taxul nga bàyyi ko. lu mooy coogaay bi lu mooy jotaay bii. jotaay ñu ngay tëj alquran. jotaay. ñu ngay tëj alquran ñu jotaay yëpp ñu ngay tëj alquran. nee na te yonente nee na fu ñuy tëjee alquran fu ñuy tëjee alquran yàlla maye na fa yàlla maye na fa kenn ku nekk kenn ku nekk ñaan goo xam ne dina la ko nangul ñaan goo xam ne dana la ko nangul sallallahu alayhi wa sallam nag njëkkalante leen seen soxla yi ñun ñëpp nañ teewal suñ soxla yi. njëkkalante ñaan yàlla. njëkkalante ñaan yàlla. man sama wàll ci ñaan gi. na moom wàllam ci ñaan gi. maa ngi koy may Sénégal yëpp. mu ngi koy may Sénégal yëpp. yal na yàlla yëkkati Sénégal. yal na yàlla yëkkati Sénégal yaara bi. yal na yàlla barkeel Sénégal. yal na yàlla barkeel Sénégal yaara bi. yàlla dooleel Sénégal. yal na yàlla dooleel Sénégal yaara bi. ci xam-xam. ci xam-xam. ci xam-xam. ci xam-xam. ci nguur ñu dëgër. ci nguur gu dëgër. ci nguur ñu dëgër. góor ci góor yu dëgër ak nguur gu dëgërit ak nguur gu dëgërit ndax nguur bu dëgëree ndax nguur bu dëgëree ay góor rek ko dëgëral ay góor rek ko dëgëral na muy doxalee ca góor ñooña nag waaye na muy doxalee ca góor ñooña nag ca lay àggee ca lay àggee am seen confiance am seen confiance xam ne am na nguur ñu xam ne am na nguur itam xam ne am na nguur gi itam xam ne am na population yal nañu ko yàlla dëgëral yaara bi barkeel Sénégal. yal na yàlla barkeel Sénégal yaa rabi. yal na yàlla barkeel doomi Sénégal. yal na yàlla barkeel doomi Sénégal yaa rabi. góor ak jigéen. góor ak jigéen. yal na yàlla barkeel suufi Sénégal. yal na yàlla barkeel suufi Sénégal yaa rabi. yal na yàlla bettee ñu ay xéewal yoo xam ne xaaruñu ko woon. yal na yàlla bettee ñu ay xéewal yoo xam ne xaaruñu ko woon yaa rabi. ndax xéewal gu la bett rek moo gën a neex. ndax xéewal gu la bett rek. moo gën a neex. xéewal goo yaakaar moo agsi bu agsee ak da ko doon yaakaar rek agsi. xéewal goo yaakaar mu agsi bu agsee la nga doon yaakaar rek mooy agsi. waaye nag loo xam ne daf laa bett nag. waaye nag loo xam ne daf laa bett nag. yonent bi mu ne loo loola mooy xeewal sallallahu alayhi wa sallam yal nañ ko yàlla defaleeg loolu yaara bi yàlla wax nañu ne am na ndollal yàlla wax nañu ne am naa ndollal yàlla sa ndollal googu rek ci lañ soxla tey yàlla sa ndollal googu rek ci lañ soxla yow yàlla sa ndollal googu rek lañ soxla yow yàlla sa ndollal googu rek lañ soxla ci suñ bopp ci suñ bopp ci suñ njaboot ci suñ njaboot ci réew ci suñu réew ay taalibe ci ay taalibe mboolem jullit ci mboolem julit boo xam ne nekk na fu nekk boo xam ne nekk na fu nekk oyofal. yal na yàlla oyofal yaa rabbi. dëgër gi nekk ci monde ci jullit ñi. dëgër gi nekk ci jullit ñi. yal na ko yàlla nooyal. yal na yàlla xamale. jullit ñi jullit ñi. ci bëggante. ci déggoo. ci bokk fu ñu jëm. ci bokk fu ñu jëm. yal na yàlla may ñu loolu. yal na yàlla may ñu loolu yaa rabi. moo ñuy delloo ci doole ji nga xam ne. loolu rek moo ñuy delloo ci doole ji nga xam ne. mooy doole dooley lislaam. mooy dooley lislaam. dinañuy wax ne nañ dellu ci lislaam. dañ danañuy wax ne nañ dellu ci lislaam. waaye lislaam nekkul gannaaw bañ cay dellu. waaye lislaam newut ci suñ gannaaw bañ fay dellu. lislaam mu ngi ci suñu kanam. nañ tëb àgg ci lislaam. nañu tëb àgg ci lislaam. àgg ci jikkooy lislaam. àgg ci jikkooy lislaam. ci mbaaxul islam. àgg ci mbaaxil islam. loolu yëpp ñu ngi koy ñaan yàlla. loolu yëpp ñu ngi koy ñaan yàlla. ci jotaay bii. ci jotaay bii. yàlla dinañu ko may. yàlla dinañu ko may. yàlla dinañu ko may. yàlla ko may alhamdulilah. ndax moo ñu ko dig. ndax moo ñu ko dig. loolu yëpp def nañ ko. loolu yëpp def nañu ko. fan yii yëpp soobu nañ ci alquran. fan yii yëpp soobu nañ ci alquran. ndax alquran du doon jëmm juy dox. ndax alquran. alquran su doon jëmm juy dox. alquran su doon jëmm juy dox. foo dox ci dëkk bi dajeeg moom. ndax liñ fi nekkee. ndax niñ. ndax liñ fi li ñu fi nekkee fan yi mooy alquran rek. xale yee mag ñi. góor ñeeg jigéen ñi. ñëpp ñëw nañ bengoo. dengoo ci téere bi. ñu ngi ñaan yàlla. nangu ay ndigalam. topp ko. yal na nekk ak ñun noonu. ak ngërmandeem. ak yërmandeem. ak mbaaxam. fam ñu soxlaa. ba fam ñu soxlaa. ñu fekk fa itam yërmandeem. ñu fekk fa itam yërmandeem. mbaaxam ak yëkkate koom. yal na yàlla boole ñu ci sangi àddina. yal na yàlla boole ñu ci sangi àddina yaa rabbi. te bañ ñoo bañ bañ ñoo boole ci ñu suufe ñi. te bañ ñoo boole ci ñu suufe ñi. yal na yàlla yëkkati ñu. yal bi yàlla yëkkati ñu yaa rabbi. yal na yàlla dolli ñu. yal na te bañ ñoo wàññi. yal na yàlla wërsëgal ñu. te bañ ñoo boole keneen. di ñu wërsëgal ci jëmmam ci boppam. yal na yàlla defal ñu loolu yaa rabbi. yal na ñu yàlla jegeel. te bañ ñoo soril. yal na ñu yàlla xamal. xam-xam bi jëriñ. ci zahir ak ci baatin lépp yal nañu ko yàlla xamal yaa rabbi may ñu kattan ñu ko toppee ci zahir ak ci baatin ndokkeel taalibe yi ñëw yëpp tey. ñu ngi ndokkeel taalibe yi ñëw yëpp tey. ngir topp si ndigal. ngir topp si ndigal. ku topp ndigal rek. ku topp ndigal rek. da nga taseek lu tax nga topp ndigal. ci ma ne yàlla ji. ci yi yàlla. yal na yàlla defal ñu ko yaara bi. yal na yàlla defal ñu loolu yëpp yaara bi. ñu nuyu xalifa. ñu ngi nuyu imaam ñoom tamit di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seen mën-mën yal na yàlla yokk seen kattan yal na yàlla yokk leen a ubbi yaara bi ci zahir ak ci baatin yal na yàlla barkeel yëpp yal na yàlla barkeel lépp salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mu ngi noonu kon euh, xatmul quran bi lañ doon amal fii ci Medina Baye fàttali leen nombre bi moo di 75 461 kamil la ñu amal fii ci Medina Baye ngeen dund ko euh, seetaan ko ci Alfayda ak ci rajo bi euh, loolu yëpp di ci gërëm bu baax a baax suñu naataango yi nga xam ne tey jàpp nañ ci liggéey bi ba nga xam ne yemb na mu di Mame Waly Seck ak xaalid euh, yi mu ngi noonu amiin sëriñ bi mooy ñaan ñi teewlu ko amiin amiin amiin yaa sahibil fayda moom mooy loon ñaan noonu Khalifatul saahibil fayda mo mo la ñaan noon mo di Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass euh, en direct ci la référence mu ngi non imam djugna na mu ngi nuyuwante ak xalifa Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mu ngi ko ma sha allah mu ngi non euh, ñepp bëgg ko laal ziaré ko modi mom khalifa bi ak imamul akbar imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé mu ngi non kon As jan moom moo la jot mu ngi imam mu ngi noonu di tagok xalifa bi ñaan yi am na solo mbokk yi eh, jàngam alquran la ñetti fan lañ ko Medina Bay. jiite woon ko imam Cheikh Tidiane Aline Cissé imam Mourati amin yal na yàlla amin jërëjëf imam yal na yàlla fay jazakallahu xayran jasaay ah, taxaw nga jublu nga Masya allah xam la na jàngale ne may ma ma jël ko rek eh, imam imam Khalifah bi digaloon na la nga woote nit ñi wuy si neen looy wax mbokki taalibe ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp di leen wax ne nañ dellu ànd ak ngërëmal yàlla dellu ànd ak ngërëmal Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ndax ay jëfam rek lañ doon ñëw di feddali di ko topp yàlla na yàlla fayante kenn ku nekk ci soxlaam te defal ñëpp barke ci seen ya tok seen dal yalla may ñu fekke ko at yu bare bare bare mu yokku ci kanam daiman iman dañ baña wañe dalukanau baña delu gannaaw lepp lo xamne ne la borom am bëggoon ci dëkk bi ak ci diine ji ak ci Sénégal yalla nako ko defal dañ fekke ko ñun ñëpp jërëjëf kooku mooy yey Mamoul Akbar comme ni mala ko waxe mom mo la serigne bi digalon mu nit ñi wuy ci neen ko def na appel bi ci fukki fan ak juroom nit ñi ñew wuy ci ko euh, mu def ubbi kaamil yi ci ajuma bi nga xam ne moo di ajuma bi weesu euh, wala alarba bi weesu mu defoon li nga xam ne euh, moo di euh, ubbite gi bi jullee fajar ba noppi rajo Alfayda gunge woon leen ci naka noonu tim njàngam alxuraan ci biir journal bi alarba ba léegi yéen a ngi dégg ay reportage yi nga xam ne suñu journaliste yi xereñ yi ñu ngi ko fi amal ci ndimbalu Ibrahima Gaye ak ñi nga xam ne Euh, ñoo di euh, rédaction bi Cheikh Babacar Dieng ñoom day Fatou Cissé ak ñi ñu ëmb ñoom ñëpp ñu ngi doon amal li nga xam ne ñoom ñëpp ñi nga amoon li nga xam ne moo di euh, liggéey bu am solo boobu ci wàllu xatmul quran bi mbokk yi kon jeex na tey ji àjjuma ñaar fukki fan ci weeru Chaban 1440 toll ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril daaw ñu ngi ci ñenti fan ci wéru mai ren ñu ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ben ci wéru mai gërëm leen sant leen bu baax a baax gërëm équipe bi wali sek mo nekkoon ci technique bi ci wàllu rajo bi euh, ci euh, caméra bi Serigne Gueye ci wàllu technique bi Cheikh Bachir mu euh, mu ngi noonu ci micro bi ci technique ci micro bi Mohamed Bachir ñang gërëm leen jërëjëf Mohamedou Khalili moom itam. alhaaji libaas mbay moo nekkoon ci immeuble cheikh imam hasan Cissé radiallahu anhu immeuble cheikh imam hasan Cissé radiallahu anhu kon mu ngi noonu mbokk yi ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax rendez-vous incha allah beneen ajuma weeru koor laa ngi ñëw alfayda dinañ leen ci gunge jaajëf libaas mbay ci wàllu technique bi micro bi Mouhamed Bassir libaas xanaa da xiif ñi fa ñi <laughs> Seydou Yoro di a moom a Zeynabou Niass ñu leen di